alfatawa seen émission alfatawa fii ci rajo Keppaar FM 99 point 7 Kaolack alfatawa di émission bu leen rajo Keppaar FM bu Kaolack di baaxee ngeen ci ànd ak oustaz Abdallah Sall mu ciy dalal ak docteur Mouhammad Ahmad Lo mbokk yi ñuy déglu ak fu ngeen mën di nekk di ñu topp fii ci Keppaar gi FM fii ci Kaolack ak fu ngeen mën di nekk ci àdduna ñu ngi leen di nuyu di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq te defal leen ko ñuy del siwaat nag ci sunu jataay bi nu bokk muy jataayu fatawa muy émission bu ngeen di jaar ngir mën a joxe seeni laaj ci seen wàllu diine ngeen ci amee ay tontu yu am solo ci seen émission bi di al fatawa ajjuma ju jot la bu vingt et une heures jotee ngeen mën a woote ngir joxe seeni laaj ci 33 959 20 35 33 959 20 35 seen émission al fatawa des na leen ko baamtulal ajjuma ju jot 9 heures ci suba
Home Choice Sénégal mooy këru ouvrier yi mooy këru professionnel yi képp koo xam ne da nga di professionnel di liggéey wala ngay ouvrier da ngay soxla outillage ñun ñooy numéro un ci wàllu outillage fii nga xam ne moom moo di ci réew mi ak fépp foo dem ci àdduna bi la marque Total est de renommée internationale lan nga bëgg groupe électrogène aspirateur pompe immergée motopompe meuleuse perceuse visseuse wala lan Total suñu adresse mi ngi nekk 82 avenue Lamine Gueye téléphone 33 821 45 45 suñuy partenaire ña nga ci Mbour Tivaouane Pikine Tali bu mag Touba Kaolack mais aussi à Saint-Louis la marque Total foo dem ca àdduna bi fekk ko fa ndax qualité
ay kawnin nabawi alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mbokk yi gannaaw bañ sante suñ borom subhaanahu wa taala di jullee ka sëlmal ci suñu sang muhammad salallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi delsiwaat ànd ak yéen ci jotaay bi ñu bokk muy jotaayu fatawa fii ci rajo Keppaar FM 99 point 7 ngeen ci ànd ak seen mbokk Abdallahi Sall mu féetewoo gaaral seeni laaj mu jàkkaarloo ci cheikhana docteur Mouhammad Ahmad Lo mu féetewoo tontu seeni laaj mbokk yi ñu ngi leen di masawu di leen jaal li ñu bokk muy suñu sëriñ di suñu waajur di suñu kilifa al imam Alioune Badara Ndao mi nga xam ne bàyyi ko na fi yal na ko yàlla yërëm te jéggal ko yal na ko yàlla xaare aljanna yal na suuf sedd ci kawam yal na ko malaaka yërmande yi teeru yal na alfirdaws al aala di wàcc waayam di ko jaal monnu musulman bi yépp rawatina ñi nga xam ne ñoo féetewoo fii ci Sénégal di ko jaal boroom xam-xam yi di ko jaal kilifa diine yi di ko jaal sëñ daara yi ak ndongo daara yi di ko jaal ñépp rekk ndax ku nekk rekk am nga ci moom cër moo tax ku nekk mën na koo jaal moroomam bu doonoon koo xam ne ku amoon taxawaay la ku nekkoon ci lim war a nekk la doonoon yarkat bu mag doonoon misaal ci wet yu bare bare bari Cheikhana tey suñu jotaay bi dañ koy ubbee jox la kàddu mu doon ay kàddu seede yoo xam ne dinga ko def ci jëmm jooju ci kilifa googu ndax ñàkkul am na ay jëflante ak lu ngeen dund loo xam ne mën nga koo seede baaxee ko mbooloo mi ndax it ñun ñooy seede yi suñ borom subhanahu wa taala ci kaw suuf kon Cheikhana ñu ngi lay jox kàddu gi nga tijjliñ jotaay bi niñ ko baaxoo defee rek nga dikkaat ci loolu su ko defee ñu jublu ci liggéey bi بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أم- أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñu déglu ak fépp fu ngeen man di toll noo ngi del siwaat ànd ak yéen ci suñu jotaay bii di fatawa di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu dolli nu tawfiq ak ndimbal ak yërmande saxal na ci siraatul mustaqim ba keroog nuy dajeeg moom cheikh abdullah wax nga dëgg al imam ali ndaw daanaka suñ doon seede ci moom émission bi mën na cee jeex ndax ba ñu xamante dafa yàgg suñ daje bu njëkk maa ngi fàttaliku ne bu dul mille neuf cent quatre-vingt-six di quatre-vingt-sept ñoom ñu ñëw ci benn musaabaqatul quraan ca Makka ba noppi jaar Madina foofa lañ jëkk nuyoo yaakaar naa ne yaari at yooyu may nattable Cheikh docteur Mouhammad Habibullah Sy mën na ko jubbanti ndax quatre-vingt-six la wala quatre-vingt-sept waaye ala kulli xaal du génn yaari at yooyu foofee lañ jëkk daje fa lañ jëkk nuyoo xamante ga it tàmbale foofa ba 2002 ñu bokk ak aj goo xam ne yàlla dogal na aj googee maa ko jiite woon ña doon aji it jaare woon ci suñu loxo wala la ci ëpp ñu ànd dem ba dikk am xew-xew yu bare bari yu fa xew yoo xam ne ci biir aj googee gën naa dëgëral diggante bi ba nu ñu bisee it ba nii mu génne àdduna luy dëgëral loolee rek fu nu daje fu nekk loola lañ fay gis liñ xam ci moom it mooy nit la daal ku bëgg lu baax nit la ku bëgg lu baax loo xam ne lu mu jàpp ne lu baax la rek daanaka sax boo tuul du am lu mu cay seet da cay daal di dugg rek buñ ko ne lii lu baax la mu xool ko mën nañ ko caa yóbbaale loolu nag ku ni mel mënoo koo àtte lenn ci lu dul ne ku bëgg lu baax a ngi nii la ëpp solo mooy ñaanal gi seede yi daal mooy nit ku baax dem na nit ku bëggoon lislaam dem na nit ku nangu woon a son nit ngir lislaam dem na yàlla na ko borom bi tabaraka wa taala nangul ab liggéeyam jéggal ko ay rëcc rëccam te sàmmal ko ak njabootam akub liggéeyam njaboot gi mu fi bàyyi ak liggéey bi yàlla na ko sunu borom tabaraka wa taala sàmmal boppam teg leen ci siraatul mustaqim yi nga xam ne mooy la yonent ba alayhi salaatu wasalaam nekkoon ak i saxaabaam yàlla na leen yàlla dëgëral ca loola di ko jaale sun bopp di ko jaale it nag ñëpp ndax kat ku nekkoon nitu ñëpp moom ku koy jaale say boole ki jaale ko ñëpp kon Cheikh Abdallah bala maa guddal ñu daal di dugg rek ci lii nga tiim ci ay laaj mel na ne xaw naa am solo alhamdulilah Cheikhana jërëjëf ci kàddu yu am solo yooyu jërëjëf ci seede yu mat yooyu al ustaaz Abd Ali Ka di wootee kër Bonj day laaj nee na day gis ci àll bi léeg-léeg am ay dëkk yoo xam ne ñoom duñ taxawal àjjuma amaana xëy na dañoo jàpp ne mbooloo mi matul ndax ña fa dëkkee matuñu mbooloo walla boog dañoo jàpp ne dëkk ba daa amul lu ñuy tuddee jaamia muy jàkka ju mag joo xam ne dañ koy samp ne ji jumaa ko tax a jóg loolu la wax nee na nag dëkk yooyu nga xam ne nii la mel léeg-léeg xew-xew yu rëy xew fa moo xam xew-xewu bànneex la moo xam xew-xewu tiis la mu ne su boobaa mbooloo mu bari dañ fay daje léeg-léeg mu doon mbooloo moo xam ne ay imam yu baree nga ca ay jàngkat yu baree nga ca su ko defee su tombeeg bisu aljuma waxtu ajjuma fekk leen foofa ndax ñoom dañoo war a taxawal ajjuma ndax daje nañu wala waruñ koo taxawal
alhamdulilah mbooloom ajjuma day moom fuqaha yi dañ cee wax ay wax yu xaw a takku ñii nee nañ dana mat fukki nit ak ñaar door a mat ajjuma ñii nee nañ dana mat ñeent fukki nit am ñu wax ne mbooloo mu nekk rek mën naa nekk ajjuma doonte ñetti nit lañ sax kenn ka jiite ñaar ña daal di xutba jiite leen loola jullit ajjuma la loolu nag xëy na nit ñi miinuñu ko waaye booy xool li nekk ci biir téere yi jàngale sharia day di xool itam seeni dalil kenn ku nekk fa mu dellu da nga gis ne wax jooju yi mooy wax ji gën a dëgër ndax lenn luy wane ne am na mbooloo mu munta julli ajjuma loolu amut ci njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi waxul ne nangam cib lim moo mën a julli ajjuma waaye su fekkee lim boobu yi matul mënuñu julli ajjuma loolu nekkul ci xadis yi nekkul ci téere yi siira yi loolu moo tax xadis yi nettali ak téere yi siira yi nettali sonnuñu ci di lim lim yi nga xam ne ñoo doon julli ci gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kenn ku nekk xam na ne ajjuma jëm jëkk julli ca waadi Ranuna gannaaw bu mu jógee Quba ànd ak Abu Bakar Siddiq radiallahu taala anhu jëm si ci Madina te ak seegut foofee la jëkk a jullee ajjuma waaye ñan ñoo nekkoon ci gannaawam kan moo dolli ko ci Abu Bakar loolu day mel ne xam ko xaw naa jafe tuddeesu ko ndax foofee ci waadi Ranuna daa am nit ñu fa dëkkoon ñoo xam ne jotoon nañoo dugg ci lislaam ñu ñëw ànd ak moom julli wala ndax ca waa Madina ña ko naroon a gàttandu si da caa am ñu ñëw ba foofu ànd ak ne foofu sori la ci yooyu jamono wala amut wala ndax xubaa gi mu jóge daa am ñu ko toppoon ànd ak moom ba foofu ànd ak moom julliwaale wala mook Abu Bakar Siddiq kese ñoo julli foofu seen julli àjjuma ala kulli xaal liñ bëgg a wax foofu mooy ñii nettali ci wàllu siira ak di nettali ci xadiis yi sonnuñu lool ci julli gu nekk ñi jéem a xam ña fa nekk ñaar lañ wala ñett lañ wala fukk lañ wala fanweer lañ lu ko waral mooy bu xasee nekk julli mbooloo rek mën naa nekk julli àjjuma nit ñi nag loolu moom dunde dundewuñ ko xëy na wàllu ngir moo tax waaye ala kulli xaal buñ jàpp ne mukk am na mbooloo moo xam ne moom suñ jullee àjjuma du wér loolu moom amul te it defe naa ne fukk ak ñaar yi ñuy wax ab dëkk boo xam ne it fukki góor ak ñaar amu fa jàpp naa ne loolu it néew na muy am ci suñ dëkk yi kon jullik àjjuma ñu bari defuñu ko waaye farata la ci ñoom ñu baree bari defuñu ko fekk farata la ci ñoom lu dul dañ caa am gànt nag comme amuñu imaam wala yu mel noonu ndax loolu léeg-léeg mu am léeg-léeg am dëkk yoo xam ne imaam amu fa ndax mënta jiite ku mën a jiite ajjuma mën a xutba mën a def lépp mën na faa manqué looloot ba tey ak càggante la nag ndax lépp loo xam ne fardu kifaaya la su fekkee kenn taxawu ci ña ca des moom dañuy bàkkaaru muy waa dëkk ba kon loola noonu la demee am maa nag su mbooloo mu bari ñëwee àndandoo su fekkee seenu ngir daa wax ne nangami nit dañuy am door a julli ajjuma su fa mbooloo mu bari nekkee wàññiwul dara ñu julli ajjuma ala kulli xaal noonu leen jàpp mooy waxuma mbooloo mu bari moomee di ñëw waaye waa dëkk ba su fekkee ñetti góor am nañ fa te kenn ka mat na imaam rek mën na leen a jiite te la chaque ne góor ña bu ñuy julli faaw ay jigéen danañ dikk ñoom itam ànd ci julli la kon problème moom ñaata nit ñooy julli moom ci dëkk yi loolu moom daanaka amuñu ko su fekkee ne ab dëkk la wallahu taala alam جزاكم الله خيرا شيخنا mbokk mi nee na jullik suba su imaam di jàng ci kaw day ma'muum dafa war a déglu mu ne nag léeg-léeg nga julli ci jullee ci jàkka joo xam ne imaam dafay xunuut ci fajar mu ne ndax su demee ba toll ci jamono ji muy xunuutee nga xam ne day yelu ndax foofa ma'muum sañ naa jàng faatiha moom alhamdulilah dëgg la su imaam di jàng ci ak julli maamum dafa war a déglu kon maamum imaam da koy yóbbaaleel am njàngam foofu ndax déglum njàng am njàng la su fekkee nag dafa dem bay xunóot mu nar a toog noonu rek loxo yi neen foofa jàng fatiha ga doonut loo xam ne lu wàññi dara la mën naa jàng alfatiha rawatina kay xunóot lu gën a bari ci ñuy xunóot waxtu fajar noonu yi xunóotu cell lay doon maanaam kenn du dégg la imaam ja di wax xëy na bu doon ko yëkkati kàddoom sax mu mën di teewlu ñaan nga muy ñaan waaye su fekkee ne moom ci jëmi boppam moom ma moom ji gisul ne xunóot des ko war a def fi bërëb boobu yi kon lay nekk ci kanamam rek mooy toog na cell taxaw na cell te taxaw na cell jooju moom foofu amu fa place su ko defee la ca sës rek mooy fatiha mi mu jàngul woon mu jàng ko loola incha allah daru nekk ci wallahu taala alam jazakum allahu xeyran cheikhana abdallah sharif Diallo di wootee ba Cameroun nee na daal li mu bëggoon a leerlu mooy attey sunnal jigéen sunnal jigéen daal lan mooy atteem dëgg-dëgg ci lislaam alhamdulilah lu aju ci wàllu njongul jigéen jaaroon na fi lañ ci mën a wax rek moo di yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gàddaay na ñëw Madina nit ñi ñëw di ko nuyoo seeg di dugg ci lislaam ak ñu di leen parasanté am sax na su agsi ñu ne ko kii moom mooy sunnaalal gone yu jigéen yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko day na woyof de na woyof waaye bul xóotal noonu la ko ko waxee alayhi salaatu wasalaam waaye falal te bul xóotal ndax day noonu yi ma ko waxee defe ko ni moo ëpp solo ci kañ koy defal am na naataa ngay xar kanam jum koy defal waaye ca kanamit bis bu amee boroom kër am na lu mu koy jariñ foofa kon loolu la nga ciy jànge mooy lislaam terewu ko waaye nag dafa santaane suñ koy def nañ ko def loo ko xam nit ñu bari nag wala ci ci jamono béréb yu bari dañ koy ñaawlu ak di ko tere ak di ci sanctionné sax ay nit te am na ñoo xam ne bu dul wàllu diine sax teewut si moom seen aada la xam dañ ko aadawoo lu mel noonu nag dama yaakaar ne tere ko mutlaqan li ci gën mooy organiser ko fexe ba ay docteur di ko def comme niñ koy defale góor nga xam ne la ñuy def danañ xam lu mu doon loo xam ne lor munu caa juddoo ëllëg waaye bàyyi ay nit ñu nekk ci ay roq ñu yor ay paakaak ay saatoog yu kenn xamut loolee moom mën naa indi lor joo xam ne dana lor jigéen gi ci léegi ak ca kanam lu mel noonu moom mënees na koo tere waaye tere jëf ji nag moom nañ xam ne lislaam terewu ko doonte néewul nag def leen ko maanaam nekkut loo xam ne dañoo soññee ne faw ñu defal ko jigéen ñi loolu nekkut ci sharia waaye nag terewu ko kon ku ko aadawoo ba koy def dañ ko war a orienté indil leen ay juriste yoo xam ne ñu xam wàllu médecine la ak wàllu lu demee noonu te doon ay jigéen ñu di leen ko defal ci waxtu bu teel woo xam ne lor du ca am te lañ cay jëlee itam du doon loo xam ne luy mën a wàññi dara lay doon ëllëg wallahu taala alam ahsan allahu ilaykum cheikhana mbokk mi day moo fi laajoon bu yàggul lu jëm ci koo xam ne dañ ne daa feebar dañ ne ay jinne ko jàpp ñu jël ko yóbbu ko ci njabarkat nee na lim bëgg a leerlu nag mooy nooy xàmmee njabarkat bi ak ki nga xam ne day faj fajub sunna alhamdulilah ab njabarkat ak kuy faj ci sunna day su fekkee ne wóor na ne koy faj ci sunna ci sunna lay faj moom amul luñ nu roole bay bañ di leen jaawale kii faj ci sunna gisaanewut xamtuwul garanti wul kenn ne la dama lay faj waaye ay garab la yor moog médecin bale ca hôpital ba daanaka sorewuñ mbir xanaa rek moom dana mocc mocc yoo xam ne day jóge ci alquran jóge ci sunna dana joxe ay garab yoo xam ne am na ci orientation yoo xam ne yi ci ëpp ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la jóge moo tax ñu tudde ko pajum sunna garab yooyeet mën naa doon ay xob mën naa doon ay reen mën naa doon it ay ak waaye nag di jéem a xam nag feebar bu agsi rek nga xool nit ki ne ko yow nangama la dal wala yow jinne dalaa dugg wala cet dalaa dugg wala nangam yu mel noonu loola moom bu xasee dugg si rek day daal di juyoo ak pajum sunna ndax nag yan yan jumtuwaay nga nga yor yow ba xam ne jëmm ji nangama ko dugg su fekkee ne dangaa gis ay yëngatu yu muy def moom ci boppam yoo xam ne dafa nuru loola ba nga jàpp ne jinnee ko jàpp yëngatu yu mel noonu mën naa am te fekk jinne jàpp ko ndax ñi nga xam ne dañoo tàggoog seen sago ñëpp ñoo bokk ay yëngatu yu ñuy def su ko defee wala ñoo jàpp ne leneen la moom dañoo war a jëkk dem ci hôpital ba ñu seet ko gëstu ay mbiram ba xam kii lan moo ko gaar ci xeeti feebar yi su fekkee ne kooki di faj ci sunna yorul ay jumtuwaayu matériel yoo xam ne ca lay xamee loola da ko war a yebal ci hôpital mu dem ñu defal koy analyse am gëstu ko seet ay mbiram yépp ba ne nangama ko dal su ko defee bu ñëwee nag moom su gisee ni loola mën na koo faj mu faj ko su gisee ni munu ko nag mu xam ne loola munu ko su gisee ni it mocc ko moo ko war mu mocc waaye moom bu mu jiima orienté ay nit ak naan leen lii moo ko dal wala laa moo ko dal ngelaw la koo dugg wala dañ koo catu wala dafa jaar fii wala dafa jaar fii loola moom bu ci amul firnde rek jërul mu cay dugg ndax xeetu gisaane lay daal di bëgg a doon te gisaane gisaane moom jabar a koy def wallahu taala alam barakallahu fikum cheikhana alxaaji juuf di wootee njóobeen taaleen nee na néew day sax na ni des koy sàngee ñetti malaan mbaa juróom nee na li muy laaj mooy ndax sax na ak ndax dina wér ñu sàngee ko benn malaan mu ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam it am na ñuy werante ci moom ne ñaata malaan lañ ko sàngee ñii ne ñett ñi yeggale ko ci ba ci juróom ndax dañoo wàññiwaale ay yéreem yéreem yi nga xam ne ci lañ ko sàngee am nañ ci ñoom ñoo xam ne dañ koo wàññiwaale ba yóbbu ko mu doon juróom mu ne loolu it lan moo ci gën a wér alhamdulillah yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñetti malaan lañ ko sànge comme ni mu ñëwee ci xadisu aïcha radiallahu taala anha ci saxiixu albuxaari ak ci saxiixu muslim ci ay riwaayaat yu bari salaasatu aswaabin la wax yetti malaan yamaaniyatin yoo xam ne yaman la jóge biidin yu weex tàll soxooliyatin yu jóge ca gox ba ñuy wax soxool ca yaman mu ne amul mbubb amul mbaxana maanaam amul mbubb muñ ko sol solal amul mbaxana muñ ko solal waaye li am mooy yetti malaan la yoo xam ne dafa muur léppam la ko tàmbalee ca kaw ba ca suuf kon loolu yi ci aw sàngiin mooy sàngiin wi gën a mat ci su fekkee dañuy sàng góor ndax moom lañ defaloon yonent bi alayhi salaatu wasalaam amma nag menn malaan mu kay mënees na koo def su fekkee ne ñàkk am leneen moo ko waral su fekkee ne lii dong moo fa am ñu sàngee ko ko kay loola lu mën a nekk la duñ fàtte mukk ne Musab ibni Umayr radiallahu taala anhu ca Uhud ba mu génnee àdduna mel na mbubb la yor moo xam ne buñ ko sàngee muur ca bopp ba yeel ya feeñ buñ ko xëccee ba ci yeel yi bopp baag dënn ba daal di feeñ mbubb mu gàtt la kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne muur leen ko ci mbubb mi li ci des ngeen wut gàncaxub al idxir muure ko tànk ya su ko defee daal di koy denc al idxir nag garab la goo xam ne gun rookum ngeer la bu doon ci suñ réew mi moom mënees mënees na ne wutal am ngeer muure ko tànk yi wallahu taala alam jazakumullahu xeyran cheikhana mbokk mi nee na dafa am ay xorondong yu ne ci këram yoo xam ne daal dafay dañ koy yàqal waaw dañ koy jural ak yàqu-yàqu ci tabax ba nga xam ne moo fa ne mu ne ndax dagan na mu defal leen poson boo xam ne moo leen di dàq ci ni mu ko waxee alhamdulilah xam naa ay xorondong yu nekk ci kër di ko yàqal ndax mën na koo puudar ñu dee ala kulli xaal wépp xeetu rab boo xam ne day lore rey ko moom amut lu muy wàññi waaye nag su fekkee mën na ca mucc te du ko rey moom loolu mooy la ca gën lu dul yoo xam ne dañoo santaane rey ko moom am na yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ne ku ko gis nga rey leen doonte sax da ngaa nekk ci xaramu màkka tudd ca iwum ko ngay janax ak yu mel noonu waaye xorondoom moom bokkut ci ñooña moo tax su fekkee mën nga leen a toxal te réyoo leen loolu mooy la ca gën mag ñi daanañ jël xorom suy ko ca bitti pax ma loolu la leen di toxal ca la bokk soo jëlee xorom su weex tàll di nuroog la ñuy jël nga xam ne suñ ko gisee dañ ko war a yenu dugal ci seeni pax te saare ko fa bañ gis ko buñ dikkee suñ laalee xam ne seen pax mi li ko wër lépp xorom la lu gën a bari dañuy daal di toxu dem seeti feneen loola nag soo ko defee gis mu aw yoon su boobaa loolu mooy gën puudar leen daal leen di rey wallahu taala alam barakallahu fikum cheikhana kii day laaj nee na ki nga xam ne six heures du matin la yeewu fekk jàkka yi julli nañ ba noppi ndax sañ naa julli ñaari rakkay fajar balaa muy julli farataam alhamdulilah yow na fekk six heures du matin jot na ndax mën naa julli ñaari rakkay fajar doola julli farata loolu mi ngi dellu rek ci ndax moom bi mu ñëwee daa ñëw ci jàkk ji fekk ñuy julli farata su fekkee xas nañ taxawal farata day moom day ànd ak imaam ba mu sëlmal mu door a julli ñaari rakkaam su fekkee moom doo ngay julli it li muy xool mooy ndax feek jant bi di fenk julli fi ñaari rakkaay fajar ak ñaari rakkaay suba ndax xaj na fi wala xaju fi su fekkee ne ñeenti rakkaay yooyu xaj na fi day bu ko neexee mu julli fajaram ba noppi door a julli ñaari rakkaay suba bu fekkee xaju fi nag wala mu sikki sàkk sax ndax xaj na fi mu déet su boobaa na julli ñaari rakkaay yi nekk farata su ko defee yeexe ñaari rakkaay yi ci des bu noppee door koo fay donte jant ba fenk na wallahu taala alam
jazakumullahu xayran cheikhana Mouhamad Ndiaye di wootee coofak nee na ndax ñaan ak nangoom dafa am ay màndarga yu nit di mën a duut baaraam yoo xam ne su ko gisee daal day xam ne ñaanam gii daal nangu na wala dina nangu ndax day dégg léeg-léeg ñuy ñenn ñi di wax naan sooy ñaan ba yàgg ñu yëkkati noddu xamal ne ñaan boobu nangu na ñeneen ñi naan sooy ñaan ba yàgg rek muy taw xamal ne ñaan boobu nangu na mu ne ndax ñaan ak nangoom dafa am ay màndarga yoo xam ne yu ñuy gis la yuy tegtale ne nangu na wala déet alhamdulilah ñaan day lañ ca mën a jëkk a wax moo di sunu borom tabaraka wa taala nee na ku ñaan mu nangu sag ñaan loolu moom mooy départum ñaan mooy kon lay aslu ci ñaan maanaam la cay cosaan mooy ñaan yépp la sunu borom tabaraka wa taala di nangu lu dul nag loo xam ne dafa am gàllankoor muy jalgati ci wàllu ñaan wala nga xam ne kii ñaan ci boppam dafa am ayib gi nekk ci moom moo yoo xam ne moo tax nangu luñ ko ak ñaanam ndax am na yu bari yuñ tudd yoo xam ne day tee ñu nangu ak ñaan ñàkk lekk lu lew ak tooñ ay doomu aadama ak xeet yu mel noonu yooyu yëpp am na yuñ ciy tudd yoo xam ne day tax nit ki bu yëkkatee ay loxoom di ñaan ñaan nga kenn du ko nangu waaye su fekkee nag mucc na ca yooya su ñaanee rek na rafet njort ci ne danañ nangu ak ñaanam waaye teewul nag dafa am ay waxtu maanaam ay jamono ak ay barab ak ay axwaal yoo xam ne ca la ñuy gën a nangu ak ñaan bu dee ci ay jamono kenn ku nekk xam na saatul juma waxtu bi nga xam ne ca la ñuy moom mooy waxtu bi mujj ci ajjuma wala waxtu bi nga xam ne fal imaam di toogee ci minbar ba keroog muy sëlmal yaari waxtu yooyu wu ci nekk digge nañ ci ak feddaliku ci nangu ñaan diggante fa ñuy nodde ak fa ñuy taxawale julli ga foofu waxtu ñaan la waxtu bi muy taw waxtu ñaan la bu dee ci ay béréb it kenn ku nekk xam na ne al amakinul muqaddasa màkk ak madina ay béréb yi nangu ñaan la machair yooyee arafat ak mina nag yu mel noonu ca bis ya fa nit ñay nekk ay bisi ñaan la ay bisi nangu ñaan kon daal am na ay waxtu ak ay barab yoo xam ne ñaan dañ ko fay gën a yaakaar ndax la ci ñëw ci ay xadis yoo xam ne day fedd le ne ku ñaan ci waxtu sangam ñu nangu sa ñaan amaa nag màndargam ne ñaan gi dañ koy nangu ndax dégg nañ ganaar guy sab wala dégg nañ koy nodd wala jekki na jekki di taw déedéet nag loolu moom nekkul màndarga mi wane ne ñaan gi nangu nañ ko ñaan gi moom na ñaan rek su fekkee ne nangu nañ ko lu gën a bari dana ci teg bëtam xam ne nangu nañ ak ñaanam wallahu taala alam barakallahu fiikum cheikhana mbokk mi day laaj nee na jullig naafila day xam nañ ni waxtu wu ca gën mooy guddi jullig guddi rawatina ñetteelu xaaj gu mujj ci guddi gi mu ne nag ndax jàngu alxuraan moom it ndax dafa am waxtu woo xam ne nee nañ moo ci gën nit ki def ko ca wala tënkuñ ko ci waxtu alhamdulilah jàng alxuraan day tuyaaba yiñ ci digle moom képp kuy jàng alxuraan mën nga koo yaakaar ndax xaraf woo jàng bu nekk rek am nga fukki tuyaaba waaye nag am nay waxtu yoo xam ne danañ ko di dàkk ci njàngum alxuraan di ko ca gën a baril borom bi tabaraka wa taala mi ngi wax ne aqimi salaata li duluki shamsi ila gasaqi lleyl wa qur'aan alfajri inna qur'aan alfajri kaana mashhuda alxuraani fajar bokk na ci yi nga xam ne dafa am solo lool ci la borom bi tabaraka wa taala di soññee ci laaya jooji kon boo amee sa werdu way jàng alxuraan boo ko mënee tànnal waxtu fajar moo xam lu jiitu ñu julli fajar lay doon wala dangaa julli fajar ba noppi toog ca jàkka ja def sa werdu alxuraan muy li nga war a jàng ci alxuraan nga jàng ko foofee la shakka ne loola lu yaakaaru la ci ne alquran jooji yi malaayika mala al malaayikatul kiram ñi ngi koy teewe ñi ngi koy seede ña koy bind itam ñu ngi koy bind naam barakallahu fiikum cheikhana mbokk mi nee na ki nga xam ne da ngeen di digaale ci wàllum jënd ak njaay mu ne nga jaay ko am marchandise mu xool ko saytul ko boppam ba yëg ni daal dara newu ci ngeen jëndante foofa mu daal di yëkkati li nga xam ne mooy marchandise am yóbbu ba ca suba sa sax mu ñëw seedalaat la ni moom kat li nga ko jaay baax na ba su fekkee ne am na lum la desaloon sax daat la koy matalal gannaaw si gi nag muy ñu ciy soog a nemmeeku leneen loo xam ne daal da cee feeñ gannaaw bi njaay bi dogee bi njëg li dogee mu ne nag su boobaa kan moo war a garanti ci anam bu mel nii alhamdulilah diggante njaay ak jënd day su fekkee ne werante daf cee am ci diggante ñaar ñi ko séq lay dox seen diggante moom wàllu qadaa la maanaam dañ leen a war a atte bu fekkee tribunaalu lislaam moo fa nekk ca lañ war a dem bu fekkee nekku fa ñu seet borom xam-xam boo xam ne jàng na wàllu atte ci sharia ñu doyloo ko ñoom ñaar mu àtte leen su loolu amul na ñu dem ci tribunaux yi nga xam ne rek ñoo fi nekk ñu àtte leen moo gën ñoom ñuy àtte seen bopp wala ñuy xëccoo bay àgg ci di lorante nga xam ne léeg-léeg mu am ala kulli xaal lay cosaan ci am njaay mooy su fekkee xas nañ waxaale ba juboo kiy jënd ànd ko xelam vérifier li muy jënd xool ko ci anam yépp xool ko ci anam yépp ba ne bii baax na ba yóbbu ko joxe njëgg yóbbu ko loolu la ñuy tudde taqaabud su xasee am moom njaay ma dog na am na nag ay yëf yëfaan yu sew yuy gaar yoo xam ne mën naa tax li ñu tudde xiyaar am ci mooy dem ba jëmmi jamono am lum gis loo xam ne bokkul ak lam yaakaaroon ñu ne ko kooku may nañ la yow bu la neexee nga delloo ko bu la neexee nga téye ko waaye loola du doon looy defal sa bopp waaye dañ koy at atte ba lañ la wax su fekkee dem ngeen ci attekat noona la koy attee maanaam ki nga xam ne dikk na jënd téléphone bii mu jënd ko ci cent mille francs daal di koy ŋàbb génn gis bi mu demee ba ci suba sa noonu yi mu waxee mu gis keneen ku yor téléphone bi muy modèle bi nga xam ne wuute wuñ dara kooku ne ko man de ci marché sàngam laa ko jënde bu bees taq te juróomi junni laa ko jënde kooku xiyaarul gab ni day daal di taxaw maanaam dañ koo nax su ko neexee moom bu demee ca attekat ba dana ko atte delloo téléphone ba nangu xaalis ba jox ko waaye nag ngir mu defal ko boppam lu jafe lay doon moo tax daal ayib yi nga xam ne dañuy feeñ gannaaw bu ñu weccee ba dem ayib yooyu am na ci yoo xam ne mën naa waral ñu xàccaat njaay mi waaye suñ koy def atte moo koy def waaye fatwa du ko def nit ñi duñ ko defal seen bopp itam wallahu taala alam بارك الله فيكم شيخنا الأستاذ عمر صو mooy laaj ñàkkul laaj bi sax jaaroon na fi ñàkkul lim ci namm mooy fàttali baykat yi nee na baykat bi nga xam ne dafa bay ba toolam ñor waaye nag góobagul ci diggante boobu dugubam jeex wala pepp bu mën a doon rek boo xam ne da ko soxla ci toolam mu jël ca di di dundee di ko jëfandikoo laataa muy góob di wàññi ba xam ñaata la am mu ne ndax day jaadu ci moom loola muy jëfandikoo mu takk ko xam ko su ko defee lim ko ci azaka jam nar a génne wala boog loolu lu ko sharia jëggal la alhamdulilah ki am mbay moo xam ne mi ngi koy xalaata asakaal la jiitu ca fa mu war a xalaate mooy ndax mbay mii dana mat asaka xamsatu aw suq dañ koy nattale ci six cent kilos loolu mooy nisaab ci wàllu mbay kon dugubam jooju su jàppee ne war naa mat juróom benn bërigo muy six cent kilos kon mën na koo xalaate asakaal su boobaa nag yañ ciy jëlee te génnee guñ asaka ja yaari xeet la am na ñoo xam ne gone yi ñooy ñëw di dagg ay gub di boolu wala ñuy jël ca gerte ga di pëtam wala ñuy buddi gooñu gerte dagg ay doom di yëy noonu léeg-léeg sax mag def ko yooye moom kenn du ko calculaale ci asaka amaa nag mu ñëw di ca jël si loo xam ne lu ñuy dunde la loola moom mooy li taxoon mbay mi jóg su fekkee ne daal ma nga ciy góob ñuy jël di weer di bojj di ko def pepp mu di ca dund moo ko njabootam loolee moom na ko calcul ba bis bu góobee lépp balaa def dara xam la muy génne nu mu toll wallahu taala alam alhamdulillahi rabbil alamin mbokk yi mu mel ni yegsi nañu fi ñu baaxoo yëkkatee suñu jotaay di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ko cheikhana docteur suñu mbokk moom yi di suñu waajur mi nga xam ne moo fi bàyyi ko di al ustaaz al imam ali badara ndaw ñu dolli ko ñaanal di ko fàttali ko saa su nekk ci suñuy ñaan yàlla yërëm ko te jéggal ko te xare ko aljana te bëril ay kemam ci xeet wi yàlla na yàlla leeral bàmmeelam yàl na yàlla musal ko ci mbugalum bàmmeel yàl na yàlla yërëm ko yàl na ko yàlla jéggal duñu dëñ mukk di ko ñaanal di ko fàttaliku ngir ay taxawaayam kon Cheikh xanaa ñi ngi lay jox kàddu gu mujj gi nga tëjal ñu jotaay bi niñ ko baaxoo defee rek اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين ñaan yooyu nga ñaanal imam boobi Cheikh Abdallah yal na ko yàlla nangu wax dëgg yàlla sa taxawaay ci moom yow itam rafet na gis naa li nga bind ci moom muy mbind moo xam ne mu rafet la mel na ne ku ko jege nga woon ku jonjoog moom ku xam ci moom yu bare bari la nga bind wane na ko kon ñaan yi yëpp rek yal na ko sun borom tabaraka wa taala nangu ak ñaani ñeneen ñi nga xam ne ñaanal nañ ko wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh أقول لها Home Choice Sénégal mooy këru ouvrier yi mooy këru professionnel yi képp koo xam ni da nga di professionnel di liggéey wala ngay ouvrier da ngay soxla outillage ñun ñooy numéro un ci wàllu outillage fii nga xam ni moom moo di ci réew mi ak fépp foo dem ci àdduna bi la marque Total est de renommée internationale lan nga bëgg groupe électrogène aspirateur pompe émergée motopompe meuleuse perceuse visseuse wala lan Total suñu adresse mi ngi nekk 82 avenue Lamine Gueye téléphone 33 821 45 45 suñuy partenaire ña nga ci Mbour Tivaouane Pikine Tali bu mag Touba Kaolack mais aussi à Saint-Louis la marque Total foo dem ca àdduna bi fekk ko fa ndax qualité
أي كون نبوي
alfatawa seen émission alfatawa fii ci rajo keppaar fm 99 point 7 kaolack فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
alfatawa di émission bu leen rajo keppaar fm bu kaolack di baaxee ngeen ci ànd ak oustaz abdallah sall mu ciy dalal ak docteur mouhammad ahmad lo mbokk yi ñuy déglu ak fu ngeen mën di nekk di ñu topp fii ci keppaar gi FM fii ci Kaolack ak fu ngeen mën di nekk ci àdduna ñu ngi leen di nuyu di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq te defal leen ko ñuy del siwaat nag ci sunu jataay bi nu bokk muy jataayu fatawa muy émission bu ngeen di jaar ngir mën a joxe seeni laaj ci seen wàllu diine ngeen ci amee ay tontu yu am solo ci seen émission bi di al fatawa ajjuma ju jot la bu 21 heures jotee ngeen mën a woote ngir joxe seeni laaj ci 33 959 20 35 33 959 20 35 seen émission al fatawa des na leen ko baamtulal ajjuma ju jot 9 heures ci suba طلع البدر علينا
محطات محطات في حياتي يتيم محطات في حياتي يتيم دي تيري بو بيس بي وقت جار جارو الأستاذ الدكتور محمد أحمد لو كان موي دكتور محمد أحمد لو fan la ganee àdduna ñan ñooy aw askanam fum jànge alquraan ak xam-xam luy jaar-jaaram ci wàllu njàngale kañ la tukki génn Sénégal wutali Arabie Saoudite ca madinatul munawwara lum fa jànge ak ñan ñoo ko jàngal ba ni mu dellu si waatee fii ci Sénégal li yépp ci nu mu gën a yaatoo di ngeen ko fekk ci téere bi di maxattaatun fi xayaati yatim yow mi yittewoo téere bi mën nga ko amee ci yile barab Dakar Pikine ci alkulliyatul ifriqiya ca Kolobaan ci librairie Daaru Sunna ngeen mën a jokkoo it ak Ibrahima Lo ci 70 624 87 69 kulliyatul i'mar ci caaroy azir ngeen mën a jokkoog ñoom ci 77 129 10 00 Thiès ci oustaz Mamor Mbacké ci 77 498 34 11 Touba jokkoole nag oustaz Obaydullahi Fall 77 356 78 40 ba tey ci Touba jokkoole nag Daouda Fall 77 648 22 52 Kaolack jokkoole nag oustaz Abdallah Sall 77 868 69 63 ci Louga jokkoole nag al oustaz Abdallah Baba Dieng 77 539 84 84 Ndar mën ngeen a jokkoo ak Chérif Sow 77 408 19 13 Richard Toll jokkoole nag Oustaz Moustapha Diop 77 570 84 36 ca Gàmbi jokkoole nag oustaz Mourtada Cissé 998 22 42 gaaw leen fàggu bile téere bu am solo balaa muy jeex